mu ngi noonu dox jëm ci Alioune Seye Alioune Seye wan na ko ginnaaw am na lu mu ko buusu laa yi lay la ama jamoo ànd ak Aliou Alioune Seye senior maye ngoonguy daw di wax supporters yi te naan leen jeex na xoolal diggante géew bi waxante taala déeyoo é village déet bu leen xeex buppante gàllaaj jaru ko di wuurul seen seen ngi leen di gis dóor dóor nañu village mu daanu laa ilaha illallah Alioune Seye dóor na entraîneur mbay guy gi mu daanu dóor mu rewadd village taw na village a ngay daw yee village laal nañu village mu daanu pour laal bu lam saara samp na ndënd ñaari mbër yi lay laaj wala ku ñeme ñeme nga bul laal taala ah bul laal ñeme naa ko de tarkindaa la ah maa gën a nekk tarkindaa démb wax naa ko dem wax naa ko naa man tarkindaa maa ngi gën a tarkindaa. waaw waaw loolu leer na. mëkk nga siim nga sooyam. laaj ma maama Labine. maama borom Lamsaan. waaw ah, waaw. mbokk yi suivi ci Leewtoo TV damay bañ ñu jaawale Talla Ndiaye Talla mbay guy gi moom ngeen jàkkaar lool Alioune Seye Junior woon na ginnaaw Talla Ndiaye arbitre baa ngi wax ak ñoom da leen di laaj Talla. lu sa yaram di yëg Talla Ndiaye. ah tey lamb ji doy waar pare ngeen. ah ah am na doole doole daaw dox jam xaw ma nag fu ñu jëm ñoom ñaar. Ah, Alioune Seye ngay seerewaat ndombo ya mbay di defar la ca bopp ba. yee bu leen jaawale lii nuyu naa ñuy suivre ci Leewtoo TV Khady Rose Ndiaye borom Allemagne maa ngi lay bëggee bu leen jaawale bés bii tey yee waa Marsiti leen Saliou fay zaal kenn du moom taala Ndiaye gis nga tey fi mu ma ci militaire waaye loo ci mun a dégg mbër mbay raxas na loxo ya ak suuf. arbitre ba dina soufflé soufflé na may wàcc na dox ci koom wala ñu ngay doxe jëm ci ruqu saaku ya ñaari pied droit lu mbay nar lu alin say nar bu ñu dajee xalaat na mu jox ko jël na ko sànni taala taala jël sànni ngi sëq sànni loo gis waa Lamine waa yow waa Lamine non man dama bëggoon wax waxuma tey la tey la 31 mars di. ba léegi waxoo. heure bii daaw Gris Bordeaux Balla Gaye koy cons. Oh. ta Lamine la bëggoon a fàttali. ñu ne cons. waay waay a cons comme Gris Bordeaux ak Balla. Ah, man de waaru naa lii gaaw na di. weesu na doole. doxul doole yi bëri. mi ngi mel ni man ak yow ñu boole woon. déedéet waaw ma tànn jël bu nii Lamine. maa dara maa yàlla munoo maa bul waat lii. ah dama lay daan de. dama koy daan de. duma moroomam Talla Ndiaye loo ci waaw waxal. waaw combat bi nan ko gisee. combat bi Lamine ni ma ko gisee nenn la ñoom ñaar boo leen xoolee bi summe ko wax dëgg yàlla bu fekkente ne li ñu gis ci mbay guy gis yaram doole la lii am ni du ñu bett vraiment parce que tamit nag bokkuñu quoi te boo xoolee ci côté âge dafa mel ni mbay moo gën a doon xale te mbay boo ko xoolee bañ demee open press am maak ak fa nekkoon li mu mës a gëm mooy du ma moromam. duma moromam duma moromam arbitre bu soufflé duma ko fa bàyyi la preuve loolu la wane benn cong la jël tànk bi sànni ko fay jéggi dem boo xoolee sonn ci sax kon liñ tubaab naan vite fait bi fait loolu la mbay guy gi def lii mu andi nag bu fekkee continuer na maintenir ko moom mbay guy gi mën na am lu nekk ci làmb parce que xale la macha allah am na toppatoo. mobilisation bi ñu andi. waaw dafa mobiliser tey mbay guy gi xam nga arène nationale Pikine la ne ak Guédiawaye moom mu nga dëkk ba Medina boo xoolee mbooloo mi ko topp tey moo lay wan ne waa Bawol am nañ ci moom yaakaar Medina fa mu dëkkit am nañ ci moom yaakaar dif ko euh, félicité mais di encouragé ki nga xam ne nii moo di Alioune Seye Junior waaye Alioune Seye Junior tamit na defaruwaat xoolaat boppam ndax nag mbër day dis tuuti lamin mbër day am doole non oyof oyof bi dafa oyof de toro mbër du oyof kontaan ci yow lii kat a fi xewoon taala loolu ci mën a dégg li tubaab bi naan vite fait bien fait doole doxut jàmm taala yàgg naa la koo wax sew gu bëri taala est-ce que wóor na boo xoolee dafa daw rek jël tànk bi sànni ko daan ko jëli bu rëy noiro ngi ne lay dem maa ngi koy nuyu bu duudu ba kasaar noiro kaay taala kaay noiro noiro bëgg naa la. waaw bilaay